<laughs> salaamaaleykum salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di ziar leen jox seen wàccuwaay euh, di leen bëggee gars yi boobu léegi man maa ngi gis gars yi ngeen di ràkkam ràkkami di rukkum rukkumi gars yi di ma avant ay message whatsapp naan ma xër yi xanaa problème wu Wally Seck ak euh, Sidi Diop doo ci wax seet gars yi. Euh, xam nga man saa problème da da damaa am problème man damaa am problème. man dama am problème de sans problème génn guma ci gaay <laughs> gaay bu xam nga rek essence bi essence bi euh, li ci dess barétul li ci dess barétul bientôt inshallah élection yi ñew xam nga dama am mbeur mu ma bu dal da am da am mbeur ma da na wara dem naani fond de palais motax man yi taluma ko bis beeg musique bi ni da ngeen may jéggal ba ci kanam touti wax deug yalla dama bu mbeur te mbeur mi eh, ma euh dama wara and ak mom talaxlaxi rakkam rakam rakami dem naa ne pare fondé ci wa iran ak wa batiman kon digënté Sidi job ak walé sék patriote da ngeen may jéggal rek ci touti rek ngir yalla ak ma talaxlaxi rakkam rakam rakami xamna ni digënté Sidi job walé job walé xawma walé job dégg ma naan walé job sax <laughs> loolu dama ko walé déggé damay pelent man ma walé duma pelent dégg ma ko walé job <laughs> <laughs> lagi diggante di job ak wali sek wax dëgg yalla euh diggante di job wali sek wax degi yalla man gis nga gaay euh buñu buñu bu ñu buñu ah gis nga politique ak musique manam waxuma musique sax mais politique ak showbiz ah ñoo bokk nday bokku ñu bay ñoo bokk nday waye gis nga war gi am ci politique affaire yu salté yi am ci politique mo am ci musique parce que ku ci nekk da ngay fexe noo yoré sa musique da ngay fexe nu sa staff taxawé da ngay fexe nangam sangam et cetera et cetera am na yoo man du ci débat mais gars yi pour xamal leen rek gis nga di ngeen Sidy Diop Wally Seck sa waay euh, jërul débat euh jërul xëccu amna ci lo xamni wax deug yalla yeen xam ngeen ko man xamna ko kon dañ ci wax dañuy waxat rek mais xam ngeen lépp Sidy Diop. Euh, artiste la nekk fii suñu réew Sénégal di liggéey liggéeyam Wally Seck artiste la ñoom ñëpp ñoo bokk li ñuy def ñoom gis nga man Wally Seck ak Sidy mii man bu ma ciy wax ndànk laa ci wax parce que ñoom ñaar ñii ñoom ñaar ñii ay kusi mbëtt lan muuruñu tat dàquñu weñ parce que nag gis nga fans yi ciy ñaaw nii fans yi ciy ñaaw nii di ci xuloo waaw Sidy Diop Wally Seck ñoom ñaar bu ñuy àndaat di tase fee di lëngante naan ñu ngi dem bërëb nangam ko ci ne naan sa moroom sama rakk nga kii naan ko sama mag nga doo ko fekkee voilà kon ñoom ñaar ñii ci soow showbiz lañu nekk dañuy liggéey kanta njàpp jóge na ci Sidi Diop dem na ci Waly Ndeye Ndiaye Banaya et cetera yooyu ay détails la musique la comme politique musique la comme politique ku ci nekk da ngay xool peut-être nekk naa fii arrangé wu ma ma dem fee ah li ma mën a am fee mënuma ko am fii te ba tàyyi chaque jour ma ni leen gisngeen ngeen Euh, dafa doy waar dafa yaatu ginnaaw beneen bi ci topp mooy gis nga wërsëg yamul yàlla suñu borom bu ñëpp tolloo woon wërsëg am ñu gedd seen cër yaa may dégg kon Sidi Diop wali Seck wali Seck li mu man xëy na Sidi Diop mënu ko Sidi Diop li man xëy na Wally Seck mënu ko comprendre nga am na loo ngor rek moo fi nekk nit da ngay gore ba xëy dee ngor rek moo fi nekk ngor kese kese kese moo fi nekk mais bu dee ci côté Sidi Diop la Sidi job wax deug yalla bu waxante deug Sidi job yorul lu may kenn yorul lu may kenn mi ngi sante yalla ka mi ngi sante yalla limu am akas neo, mi ngi mi ngi koy bok ak ñimi muy wax deug yalla xayna wërseuk mo yamul mais Sidi euh parce que ñu bari dañ may laaj di ma poser question na ma xëri xana Sidi deul jappalé euh emploi bi manam ñukoy koy feccal orchestre bi affaire yoy non gis nga Sidi job Sidi Diop moy dem concert bala ma ñëw ci waani ah Sidi Diop moy dem concert ba concert bi jeex bañ tok nelaw lan deme ba wara tok toog gis nga manam mom ci bopam limi def amu ci dara limuy am ah ñi nekk ci ginnawam la koy jox bam jeex tak limi am mom Sidi Diop limi am ci nyinek, ñi nekk ci ginnawam la ko kat yeek way kat yeek guitare orchestre bi la koy jox bam jeex tak kon am na loo xam ni euh, bu ko mënoon dëgg dëgg dëgg dëgg kon xëy na euh, li waayal di defal keneen defal keneen defal ko ne Sidi Diop am na xol bi pas question que ne Sidi Diop daf ko yor bañ pas Sidi Diop dadul dadul jox gaa yi déedéet mi ngi jox gaa yi ay millions lay teg di ko séddale di ko séddale gaa yi di ko séddale gaa yi ba mu ni mëng xëy na nag ku ci nekk dangaa ngaa xeeb la nga cay am parce que mënuma ànd ak Sidi Diop ñu dem programme programme ba jeex. Sidi Diop exemple sedd ma 1 million ah sedd la 1 million sedd kee 1 million sedd kee 1 million yow sa bop nga xeeb say 1 million te Sidi Diop mënumaa jox 3 millions ngay kat may kat mu wàccee ma 3 millions wàcce la 1 million loolu xam nga xal nangu kon 50 50 la limi am mi ngi koy bok ak orchestre am fa yam ak no wursagam toll mi ngi koy bok ak orchestre mi koy bok ak ñimo andal aduna nak ñaara fi am wet gore wéttaliku gore kenn bañu kenn jóge fii exemple ma nekk ci lii ba ci yàgg ma ni ah lii arrangé tuma ma génn dem ca lee loolu ku ne am nga ci droit parce que réew mi aussi dafa am démocratie euh, ku ci ne yaay xool li la arrangé nga def ko mais nag doomu aadama mën ngaa gore loolu tamit day am parfois nga gis ànd ak nit amu ci benn intérêt amu ci benn intérêt mais day ànd ak moom te yàlla tax mi ngi mel ni patriote yi ancien ànd ak Ousmane Sonko lan ngeen ci am dara mais da ngeen koo bëgg te yàlla tax di ànd ak moom te yàlla tax bëgg ko te yàlla tax loolu mooy loolu mooy ànd bu ànd ak sincérité comprendre nga mais quant à parce que man euh, li ma lire ci ay message rek ah lay tontu nii ah li ma lire ci ay message lay tontu parce que gis naa ñaari message yoo xamante ni sama whatsapp maa ngi jégool nag tontu ma ko quoi mais dinaa ci def vidéo quoi ñu ne xëri lan moo tax Sidi Diop du xanaa Sidi Diop da dul jox ay emploi am xaalis sidi job limi am wërsëgam ni mu dakoy da koy joxe ba mu jeex da koy joxe ba mu jeex mom ci bopam pour mu am ci dara weccet bu ndaw problème la limu am da koy jox orchestre mu jeex mu tok ni tocc tok di tok di xol kon yakarna kon bo amone lu upp limi am wax deug yalla waxuma la ay auto ba ay auto yi auto oto seerul c'est que ñom ñom gis nga nag ah dañ nga mu deug ha ah, ñom fecc kat yi ak artiste yi gis nga dañu mëna yak dañuy wax dëgg te yàlla tax dañoo mën a yàq di sa man dëgg ma sonal dañoo mën a yàq parce que mën a yàq weesuwul kuy xëy yow maanaam yow lu mu dee dee sa un mois exemple te dina ko ëpp chaque un mois nga am lu mat un million yoo téyel sa bopp moomal ko sa bopp un mois chaque un mois nga téye un million yoo xamante ne yow sa bopp yaa ko moom chaque un mois waaye kooku war naa jooy oto ci rek ak xalaat kooku war naa jooy oto chaque mois kuy téye un million boo xam ni yow yoroo jabar yoroo doom Yoro jabar Yoro dom Boy jappale say nit ngay jappale sa papa sa yaay ngay ko chaque wèr 1 mois chaque chaque wèr warna million koku Sénégal warna joy auto. bay ñaani fenn hmm mais nak dafa am lo xamni dafa nek ci artiste yi ak géwal gi gis nga géwal gi dafa am lu ci nek dafa am lo xamante nak monde bi dañ ko daf ko dépasser ma nga ah. bala ma ñëw ci wani ma nga dafa am lo xamante monde bi daf ko dépasser pa question ko ni man la rek luma am dan maka may pas question que ni man géwal laa lu ma am dan ma ko may déedéet monde bi dépassé na foofu géwal yi géwal yi ci àdduna bi géwal yi gënoon a ci àdduna bi li ñu am ñoo ko liggéeyal seen bopp hmm? mooy yoon wi Waly Seck nekk yoon wi Sidi Diop nekk kon yaakaar naa kuy am weer wu dee weer wu dee nga am un million weer wu ne cinq cent mille rek weer ne cinq cent mille rek nga koy téye sa loxo bi wala weer wu ne un million wax dëgg yàlla boo yàqul oto 14 millions sax waroo koo jooy waroo koo jaaxle ndax yaakaar naa weer wu dee boo jëlee cinq cent mille teg ne boo ko defee six mois am oto oto seerul oto seerul di oto seerul oto yi maanaam am na oto yu seer mais am na oto yoo xam ni wax dëgg yàlla seerul ku ko bëgg am ko oto boo doxantoo rafet luxe am na te seerul te seerul kon kuy am chaque un mois un million wala ngay am lu ko un million lu teg te mënoo am oto boo moomal sa bopp sëf ñu jël ko foofu faaw ñu may la ko loolu ci yow la loolu ci yow la mais pour yéen ñi nga xamante ni yéen a envoyé message ni xëri xanaa Sidi Diop da dul ni jàppale ay euh, ñi nekk ci ginnaawam ay fecckatam ak yooyoom pour ma xamal leen ko tey li ma leen di wax nii doonul loo xam ni ay waxi dof la li ma leen di wax nii doonul loo xam ni ay bëgg wax ni di wax Sidi Diop maanaam moo moom bu moom bu réglé li muy réglé ba pare maanaam moom ci boppam pour mu am ci dara lu téye ci loxoom parfois day doon problème parfois day joxe toog toog ni tocc comprendre ngeen wéet gore wéetali ko gore gor rek moo fi am gor moo fi nekk gore moo fi am ak ngor moo fi nekk mais njàpp jóge ci Sidi Diop bann yaa jóge Sidi Diop ak keneen ak keneen ak keneen teewul Sidi Diop wax dëgg yàlla mi ngi liggéey li ko li ko yàlla di wërsëgale mi ngi koy am Sidi Diop li muy am ci nit ñi wax dëgg yàlla moo ëpp sax li muy am ci musique bi li muy am ci nit ñi moo am na nit ñu baax ñu koy jox lu nekk di ko may lu nekk ci loolu peut-être ci lay denc as tuut mais li muy musique ak di ko woy ak ak nit ñi di ko ci jox yàlla xam na ni da koy jox ñi mu àndal ba mu jeex moom mu toog fa fala wërsëgam yam fala dooleem yam leneen manu ko comprendre nga bu ma ñëwee ci Wally Seck Wally Seck artiste la boo xamante ni wax dëgg yàlla moom xosluwul xosluwul boo dégg man la xosluwul maanaam Wally dafa doon de musique ci papaam Wally départam rek dafa am doole Wally dafa dikk fekk fi lépp dafa dikk fekk fi lépp kon ki dikk fekk fi lépp bokkut ak nga xamante ni day xoslu pour tabax ki judd fekk sam maanaam man mi judd fekk sam tabaxal ma kër exemple tabaxal ma kër ba mu rafet ni ma pap am caabi kër gaa ngi nii këyit gaa ngi nii ah maanaam man duma bokk ak ki nga xamante ni day jaayante pour jënd terrain pour tabax kër doo ko mën a wuti lu mu am denc kon mënuñoo bokk yow temps bi ngay wut yow di denc yow temps bi ngay wut di tabax kër man temps boobu maa ngi liggéey di denc kon mënuñoo tolloo wërsëg mënuñoo tolloo doole kon wéet gore wétaliku gore moo fi nekk Wally Seck njàpp dem na ci moom nday yaay bànn yaa dem na ci moom loolu soo biis la loolu soo biis la maa leen ko wax maa leen ko wax ah maa leen ko wax maa man xëri maa leen ko wax bind leen toogal jig jël big nga bind denc toogal nga jóg jël big bind denc ñoom ñëpp dinañ toogaat trouver ben terrain d'entendre wala ñom ñep ñu wëlbeuti ko waat dem ci si de delluwaat fi ñu jóge won ma leen ko wax bind leen sow biis la bu ci kenn xajamal wali bu ci kenn xajamal Sidi job wali yalla may nako yalla may nako doole ma sha allah yalla na la yalla jappale mu gina sawan bawan ba ku ne xaj parce que man contre ma nga am sa doole am sa ala di ci jappale doomu adamay lima gina bëgg sama aduna man xëri lool la yalla may la nga bokk doomu adamay man lool dafa ma neex ta daf ma dama ko gis ci wali wali lu am ak lumu mana tol, wali wali waali na la may 1 milliard legi legi legi legi legi legi bu ko nexé to du ko wañi dara ah man na la may 1 million legi legi to du ko wañi dara loolu comme yalla may nako ko doole ji may ko alal ji may ko tamit xelum muy dimbal doomu adamay yi mention spéciale ndax bu ni won wali yorna na man na waye du dimbali kenn xam nga loolu mo gëna ñaawati yorna man na me du dimbali kenn loolu dafa ñaaw mais comme Wally yor na man na ko yàlla may na ko ah te mi ngi dimbali nit ñi loolu garaawul loolu bu ci kenn naan Wally nangam sàmm loolu garaawul ay noo Wally li muy def waru koo def warul di xëcc booy yi ni demewul noonu Wally xëccul kenn Wally woowul kenn ñoom ñoo dem ba xam ne xëy na fii buñ fi nekkee mënuñu fee am li ñu bëgg ñu dem ci Wally Wally moom day ji seex la ku ñëw mun la ah loo bëgg nangam sàngam ay artistes la mais star la ñu may leen loolu garaawul bis dina ñëw ñu toogaat trouver benn terrain d'entente ku ne dellu ci li nga nekkoon Wally ak Sidi Diop mais pourquoi pas duo sax ah ñu parce que ñoo far Sénégal la mais bëgguma ñu tilimal Wally tilimal Sidi Diop déedéet affaire bi musique la aar la nañu wàcce xol yi wàcce maanaam euh, degré yi maanaam tolloo wàcce niveau bi ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay Sénégal ñoo ko bokk. kon wali sek limi def man xeyna contre ma Si Sidy li def man contre moko wax deug yalla Sidy li mu am limu am mi ngi koy def limu man mi koy def wali sek limu am mi ngi koy def limu man mi ngi koy def dole nak moo yemul bu ñepp yemoon kàttan wax deug yalla am ñu gedd seen cieur wali man na maye auto am nako may na man nako wax deug yalla dañ ciy sante yalla dañ ciy sante yalla ñom ñepp suñu ay fierté lañ fi ci Sénégal mais soppe yi parfois ñoy jaxase artistes yi soppe yi parfois ñooy xaw a jaxase artistes yi soppe yi dañ ciy am part responsabilité bu mag parfois nga tudd Waly kii mer parfois nga tudd siidi kii mer te ñoom ñëpp ñoo bokk nday bokk baay ci benn réew la ñu nekk di liggéey te yàlla kese tax kon Ndeye Ndiaye Banaya bu demee ci Waly Ndeye Ndiaye kii euh, njàpp dem ci Waly loolu xëy na seen xalaati bopp la seen xalaati bopp la mais àdduna daal li fi am wéet gore wéetaliku gore ñàkk du ma tax a ñenki loolu moo fi nekk. waaw xeyna dafa am ñu bëgg ci walé motax ñu dem ci walé pour amé ko buñ ko amé xeyna bu seen xel dalé xeyna ñu ñëwaat parfois participer ci CD et cetera aduna non lay doxé mais man dal contre ma nga am ba paré dimbal doomu adama yi man loolu wax dëgg yalla contane na ci nga am ba paré di dimbali nit ñi contane na ci ngay liggéey tamit di jappalé ñi ngay liggéeyal ñi lay liggéeyal loolu dafa neex parce que ma lay liggéeyal ba paré di gis sa bop ci ma lay liggéeyal loolu neex na comprendre nga Sidi Diop mi ngi ci li mu am mi ngi koy def li man mi ngi koy def mi ngi jéem ji kémta lay kàttanam di jàppale ay emploi parce que kiy joxe ba ba toog moom deseetul dara kooku wax dëgg yàlla foofu la joxe yam mën naa koy jox fukki nit oto ah dese lu bari dese jeexalul dara parce que yàlla moo ko may kon dañuy nangu bu yàlla te bàyyi féewale bi ah si internet yi ku ne di bind di jaxase di yàq loolu baaxul loolu baaxul Wally Seck Sidy Euh, ñoo far ah ñoo far ay artistes lañ mission lañ nekk di ko dox bu jeexee jeex na mais mooy loolu daal waaw message yi ma gis sama WhatsApp lii laa ci tontu lii laa ci tontu Wally Seck Sidi Diop c'est la même famille waaw ay artistes lañ ñoom ñëpp waaw ñoom ñëpp mën nañoo woñ ku ci nekk am nga ay soppe doole nag moo yamul mais bu ñëpp yemoon doole am ñu gedd seen cër wéet gore wéetaliku gore loolu rek moo fi am. ku yor sa xelum bopp nag ak sa xel mu gàtt ni fii mënu ma fee am na damay def lii loolu jikkoy sénégalais la même ñi liggéey société yi da ngay gis ku nekk société ba ci yàgg jóge fi dem ci beneen société ndax lan bëgg lu gën a kawe loolu kenn du ko bañal kenn mais bu ànd ak ay kàddu yu ñaaw nice wa salaam